ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bu ñu leen ñëwaatee amaan mbégte contentement saa su ne leen koy faral di defee di leen toppal nga xam ne moo di actualité ginnaaw bu ah, nga xam ne moo di milieu showbiz mais kenn dootu ko présenté ci milieu li nga xam ne moo di musical mu nekk junior junior euh, mën nañ ko dippee junior bu Sidi Diop waaye aussi mën nañ ko dippee junior bi nga xam ne bokk na ci tey ñi nga xam ne dañuy communiquer euh, jëm ci li nga xam ne moo di koy waajal wala fas yéene dem fële ca Zénith daal di fay wane li nga xam ne moo di performance am sénégalais yéene ko li nga xam ne moo di ndam lu rëy waaye yéene ko li nga xam ne moo di victoire boo xam ne ni euh, carrière yaakaar naa ni fa la war a démarrer waaye laata loolu gis nañ mu def benn sortie bërki démboo Njaay ay polémique daal di dox ay wax yu saw ak yu sawut am na ci waaye looloo tax ñu do doxantu seet ki nga xam ne moo di ko gis waaye laataay loolu damay nuyu nga xam ne euh, moom laa feggoog fa seeni waxtaan ak moom junior maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay a baax mon ami a baax di rafetlu gis nañ liggéey bi ngay def ci li nga xamante ne bi moom moo di ci réseaux sociaux yi rafet na trop macha allah di la encouragé waat di nuyu site internet yi nga xamante ne tam ñoom ñoo fi dajawaat di lañ joxaat euh, seen wàccuwaay ci taamu bi nga xamante ne bi taamu nañ ma ko ci euh, pour ma communiquer ci li nga xamante ne moom moo jëm ci communication Sidy Diop aco mi jërëjëf Junior ñu ngi lay kontaanee yow tamit euh, ci nangu gi nga xam ne nangul nga ñu ñu ñëw waxtaan ak yow ci yi nga xam ne moom la ñu seq ak tey waxtaan wi mhm. mais Junior euh, ndax tey euh, ñuy ci waxtaan bi naka ngeen di waajee li nga xam ne moo di Zénith du Paris ndax ndax coow li bari na lool mhm. te daanaka li des ci la le 29 bëreetul macha allah Vito ñu ngi lay nuyuwaat encore une fois di rafetlu bu baax baax ci question bi nga ma posé bokk na ci question yi nga xamante ni bii su ma journaliste di posé question question bi gën a intéressante ci question yi ma soxla mhm. ci la bokk muy préparation zénith mhm. comme ni ma ko waxee woon barki démb waxee waat ko démb noonu laa koy waxaatee tey mhm. zénith dafa am loo xam ne da koo laaj te je dis pas euh, Siri Diop mais dama naan euh, suba teel ak membre yi nga xamante ne ñu ngi si ñu ngi ci bu baax a baax ci communication parce que mhm. parfois gars yi polémique dafay am parce que loolu mënul ñàkk bés bu mag moom mhm. bés bu mag mhm. boo ko tëggee te amul polémique dama nga toog te xam ne yow nekkagoo ci dara mais bés boo tëggee bés bu mag mu am polémique sénégalais ku nekk di wax jàppal ne yaa ngi ci yoon bu baax te fi toll nii dañoo nekk ci yoon boo xamante ni bii yoon bi amul geesu mhm. olof dafa am lu mu wax nee na boo nekkee ci yoon yeggagoo dañ lay ñaanal yàlla nga yegg ci yoon ba ndax lépp mën a sotti mhm. te fi mu toll nii ci li ñu nekk actuellement nii mooy euh, préparation zénith préparation bi nag comme ni ma koy waxee ñi nga xamante ni bii ñi ngi ciy dox ñi ngi ciy dox waaye tamit nag ñi nga xamante ni aussi ñi ngi ciy communiqué ñi ngi ciy communiqué waaye tam la war fële ne ca France mhm. tooguñu benn yoon Vito ma wax la benn affaire tey ñun xam nañ ci li nga la ñi ko recevoir pour ñu ñu ñu ñu def événement bi bir Zénith. Mhm. duñ cuune. Mhm. parce que xamal xamal moo tax ma wax lool. Mhm. Sénégal am na artistes yoo xamante ne tey bu ñu demoon jël seen initiative indi ay milliards duñ tëgg Zénith. xamal moo tax. parce que amuñu capacité bi capacité bi. dëgg la. amuñu public bi. amuñu xam-xam bi. dëgg boo fay tëgg da dafa am musique boo fay yóbbu. te boo xoolee ñun suñu artiste fi mu toll nii. Mhm. mi ngi ci yoonu musique boobu noonu. dugg na ci xam na yoon bi. Mhm. wax naa ko barki dem nee naa la du mbaar mbëpp mbëfar ak njolli rek la Sidi Diop di tëgg. mais dafa dugg ci beneen musique boo xamante ni nii mooy wóot musique musique boo xamante ni tey. Mhm. foo ko yóbbu ci international nit ki mën na koo dégg. mais loolu nag boo ko amee nag ngannaayoo ko. war ngaa mën a dem Zénith tëgg ko mu fees del te man maa la wax nii. su bu bés baa. Sidi dina def Zénith guichet fermé Hmm. man maa la ko wax. révélation nga ma wax leer naññ la laa la wax parce xam la moo tax. Hmm. parce que gis nga mag gis nga xale bu la nee nañ sànnañ tey xeer coon see ko wax. am na lu mu làq ca ginnaaw. kon ñu lu ñu wax am na fu ñu ko teg. Hmm. mais nag sa waay Zénith dafa ndawut. Zénith dafa nekk euh, bërëb boo xam ne bërëb bu yaatu la. te sénégalais yi moom xam nga dañoo tàmm wax ju sew ndax ñu ci bëri dañuy faral di wax naan Sidi Diop euh, est-ce moom mën na li nga xam ne mooy feesal li nga moo di man xam nga lan laay xalaat fi mu toll nii man xam na laay xalaat. li may xalaat mooy que ne maanaam na billet yi doy. na billet yi doy da loolu loolu kese man laay xalaat. maanaam mu manqué am ñu dugg ku teelul jënd doo am doo am place li man maa la ko wax. Mm. parce que xam la mm-hmm. parce que xam nga déjà Sénégal gars yi ñu wax naan communication bi léeg-léeg mais ma leeral la benn affaire. Mm-hmm. gis nga Paris euh, Espagne. Mm-hmm. Italie. fépp foo dem ci Europe fi mu toll nii Allemagne. Belgique. ñëpp ñi ngi pare événement bi te nag fu nekk nag am nañ fa ay représentant yoo xamante ni commencé nañoo jaay suñuy billets. Ah hmm. Hmm. diaspora bi nag laay waxal ñi nga xamante ni bëgg nañoo dem le vingt neuf. Hmm. dugg biir jeunes yi toog seetaan nañ teel a réserver seen billet. sinon duñ am place. lu ma la wax nag am na fu ma ko teg. waaw. Mm-hmm. am nga foo ko teg ndax waxantu woo ndax li nga wax nii ku ko dégg da ngay xam ne wax ju leer la mais ba tey it euh, moom nit bi nga xam ne tey ndax yéen da ngeen ñëpp dañ ne tey seen euh, li nga xam ne moo di seen carrière fii la mën a tàmbalee mm-hmm. parce que bii leen gis ne mooy seen programme bi nga xam ne moo gën a mag ci fi ngeen koy tëggee mm-hmm. tey programme bi moom lañ leen gën a bàyyi xel ndax artiste la kenn kenn dootu ko présenté ci àdduna sax laay wax moom Sidi mais gars yi euh, lu tax ñuy ragal à chaque fois naan Sidi mënu ko feesal ak mën na ko feesal waaw xam xam nga loolu tey xam-xamu xam nit ki la rek parce que wax naa ko nee naa gis nga nit ki booy dem fooy dem booy dem foo xamante ni miinu góo fa hmm. il faut mu am nu mu demee maanaam wax ji dafay jub mënul nekk hmm. mënul ñàkk hmm. parce que Sidi c'est la première fois muy dem Zénith tey lam laa bi mënul ñàkk tey exemple tey boo ko jëloon tey ci lamb mbër boo xamante ni bi tey mës a bëre grand combat buy buy gër a grand combat da nga naan est-ce que kii dina ci génn parce que xamul grand combat nag ñi nekk ci ginnaawam entouré ko xam nañ lieu bu baax a baax a baax ndax songu nañ fa songaat fa songaat fa. ah bon te dañ koo songu daan ko. Hmm. kon Sidi Diop bu ko songee. Hmm. du ma war na koo mën a daan de dama ne da koy daan. da koy daan lu leer laa la wax. Ah, loolu gëm-gëm la. Hmm. mais lan moo tax yéen ñi nga xam ne yéen a entouré Sidi maanaam tey bis bu mel nii gisuñu ne communication bi doxoon na. ngeen ciy génn di ci wax à chaque fois c'est très rare la ñuy gis. ngeen wax ci côté boobu noonu te dañuy gis gars yeneen artistes maanaam bu ñu xewlee baara mund rek dañuy gis ñoom ñu génn def sorti mhm. bu ñu xewlee euh, ñoom yeneen artistes bu ñu gisee ne ñoom bu ñu amee li nga xam ne moo di soirée baara mund rek mhm. xam mhm. dañuy gis gars yi def sorti def communication yëgale gis ne maanaam dafa mel ni ne communication bi des na ci waaw xam nga yaa ngi wax léegi yaa ngi naan am na artistes yoo xam ne bu ñuy bu ñu waree dem baara mund dañuy def communication si di dépassé na foofu si di pour ay dire ay baara mundee mag ay te FAESM amul sax publicité. Hmm. kenn du ko affiché fenn. te gis nga chaque samedi day fees dell gi say fermé du mës ngeen gis si di def communiqué génn damay tëgg fii. amul mës nga dégg benn voix ñu def ne si day tëgg fii. amul du affiche du dara ay hmm. fansam ñoo ko fay fekk te da koy feesal. donc loolu nag liggéey la boo xamante ne bii Sidi Diop da ko liggéey ci musique sénégalaise parce que tey am na ñuy tëgg baara mun ni ñoo xamante ne duñ gis ñaari nit duñ gis ñetti nit mhm. ah am ñoo xam ñu ngi tëgg five duñ ko feesal li nga wax nag léegi nag ci Zénith bi ci communication moom laa lay wax ma ne la lépp loo gis dafa am heure dafa am temps dafa am fi nga ko war a waxee déggoo ñu la wax dafa jooy ñu laaj ko looy jooy mu ne ki ma war a wax moo mhm. ma waxul mu jooyaat ñu laaj ko looy jooy mu ne ma war a waxee lañ ma waxeewul ñu laaj mu jooyaat ñu laaj ko looy mu ne ki ma war a wax waxuma kon heure wax bu jotee rek mhm. da ngay wax te heure wax bi na mi ngi soog a jot heure communiqué bi mhm. mi ngi soog a jot mhm. kon fi doon nii daal takku ngeen ba dëgër takku nañ ba pare nañ xam nga gars yi dañ naan ñu ngi ci préparation waaw pare nañ ñun yàgg na ci sama waa ji pare ngeen yal na yàlla motali mais nan la leen di def ci li nga xam ne moo di son bi ah depuis bi ngeen ko génnee ba léegi xam nga li naan lu neexut du bëri coow te da ngeen a génn loo xam ne ne bëri na coow te dafa neex mais ñu ci bëri dañuy gis ñu naan ñii dañoo jël son jàmbur ñii naan li ngeen joué clip bi moomu ngeen ko oto bi dangeen ko koo àbb qu'est-ce que ça te fait nga dégg Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal.